cours la des de ces affiches match huitième quart de finale yi nga xam ne moo ñu yóbbu ci demi-finale yi quand même évidemment il y a des mais c'était des matchs à haute intensité. waaw ouais, mais mais li ëpp solo pour moi c'est hmm. la performance du Maroc. huitième bi ban nga ci gën a jàpp yow bu Maroc bi. bu bu quart quart de finale bu Maroc bi mais non dégg nga la Maroc bind nañu histoire football afri africain ñoo fi def lu kenn mësut def. Hmm. donc loolu euh, dafa dafa dafa am solo euh, Maroc Afrique la bokk. pas faut pas nit ñi. ñu ñu basé wu si mm. commentaire benn benn individu. et jaxase l' Afrique reste benn benn continent bu am solo donc parti bu mu ci mënti nekk bu defee performance loolu nga njëkk a saluer et ce qui peut-être montre que en fait en réalité euh, redistribution des rôles et football euh, suprématie bi nga fa xam ne moom la équipe dëkk yu mag yi yoroon peut-être ça commence à à changer de camp et que vraiment ñoom ñoo marqué. quand même tout kii bi parce que Croatie lu ñu ci mënti wax moo finalu 2018 donc c'est une c'est c'est c'est une suite logique maintenant la France ñëpp xam nañu Argentine c'était prévisible donc euh, c'est le Maroc qui qui sort complètement du lot. Charles si c'est pas le chauvinisme africain nga xam ne ñu on salue la performance du Maroc est-ce que euh, l'arrêt pour le Brésil est aussi un un fait marquant quand même wala tu as envie la qualif du Maroc. waaw on peut ñu ñaar yëpp mën nañ si xalaat bon l'arrêt du Brésil moi j'ai toujours pensé que Brésil dafa fêter euh, sa victoire coupe du monde avant d'avoir joué la finale bon et mu da yàq xalaat bokk si ñoo xamante ne dine bon Neymar avec son esprit du esprit forcément conquérant pour un Brésil qui vient pour un résultat final mais bon ça c'est une perception totalement personnelle dama yàgg nekk Neymar dina fi ne mais ak Neymar le Brésil n'a pas l'esprit qu'il faut pour gagner la Coupe du Monde léegi le Maroc c'est la grande surprise de ce mondial mais bu ñu xoolee sur le terrain le Maroc c'est quand même un seul but encaissé contre son camp en en cinq matchs Euh, loolu équipe bu ko fi defoon defe naa c'était l'Italie en 2006 mu mujjee gagné Coupe du Monde bi la grande surprise du Maroc elle est d'autant plus euh, frappante que bu ñu xoolee quoi l'entraîneur euh, yi c'est en ce qu'au mois d'août le 31 août. 4 mois. waaw mm-hmm. 31 août la jël euh, équipe bi mm-hmm. donc 1 septembre pour euh, pour yor équipe bi pour installer benn projet boo xamante ne. mooy indi Maroc mu bett ñëpp mais il a fait ce que j'ai toujours dit mooy que l'équipe doit être plus forte que le joueur le plus fort bu ñu doon wax Maroc dañ doon wax Ziyech peut-être ak ak Hakimi si si côté ba mais il a réussi à construire benn équipe autour d'un projet bu cohérent. li ni d'ailleurs moo delloo si Ziyech moo leen dellu moo moo ko dellu si Aliou Lozic voilà mais son voilà parce que Aliou Lozic yi dafa bëri woon mais c'est le projet qu'il a mis en place et l'équipe boo xamante ne moom la tabax équipe boobu moo ay. et loolu laa loolu laa gëm man si football maintenant bu ñu xoolee ku ku yàgg seetaan coupe du monde euh, lii du la bett. on a quand même deux deux deux vainqueurs en France ak Argentine gagné nañ ko si nekk ñaari yoon coupe du monde bi donc c' des habitués donc ñoom ñu ngi fi. Euh, ñu am ñaar ko ñu am euh, koo xamante ne mooy Croatie c' était euh, demi finaliste de la dernière coupe du monde ah France moo ko dóor dernière coupe du monde te ku xam Croatie. da ngay boo yéegee tuuti si histoire Yougoslavie mais c'est toujours présent en Coupe du Monde. balaa ñu am seen problème c'était face au Brésil on peut pas non Brésil la doon dajal Brésil bu jàlloon aussi ce serait logique presque respecté quand même mais il y a joué euh, nit ñi dañuy teg ay tour football dootul euh, ay tour football tu tu Brésil bii nii Brésil bii quand eh, mais fii Bouba wax na fi benn affaire boo xamante ne Brésil ñu ñu teg ñu si man ma toog ma ne je suis totalement d'accord avec toi Bouba ne ils ont fêté eh, avant la fête. et eh, je pense que. c'était évident Brésil bi li mu li mu symbolisé. Uh-huh. honnêtement. je pas critiquer yenn nit yi mais je pense que des fois Neymar ak talent bi mu am. dafay incarner benn manque de sérieux c'est tout buy am cest Euh, boo bëggee gagner coupe du monde détermination la laaj quel que soit talent bi nga am j'ai j'ai pensé que par exemple euh, même si lucidité yenn occasion boo seetee match coupe euh, Brésil yëpp à part le premier match ay occasion yoo xam ne da nga ko war a assurer dugal ko yaa moom laa yoon ne cet esprit de fêtard de de star qui viennent de dak xam nga dafa mel ni temps au basket Harlem Globe Globetrotters xam nga quand ils font leur truc là jongle da nga naan ñoo fi. équipe de gala quoi mais de mm-hmm. gala c'est beaucoup plus ça et je pense que quelque part ce manque de sérieux la dafa xaw a manifester wu peu benn moment. est-ce qu'on n'est pas un peu trop sévère avec le Brésil parce que quand même. Euh, regardez le but qu'il met Neymar c'est un but quand même. mais xam nga lu tax cherché mais moom laa lay wax nii c'est c'est si biir match bi day am benn il a une fois. preuve de détermination et ça fait la différence mais dans dans si ci constance bi pendant si match yi mujjee ci moom la j'ai l'impression que les gens ils n'ont pas été aussi sérieux que li ñu foogoon dañu ñëw trop suffisant on est le Brésil mais manqué na un peu de de de de de, de discipline et je pense que quelque part aussi euh, Brésil daño am problème bu kii genre équipe yu mel noonu il faut en entraîneur avec une forte personnalité qui n'est mhm. pas impressionné par par des noms <coughs> mais qui met un peu boo seetee Maroc c'est ça l'entraîneur il il porte ça il incarne ça donc Maroc euh, Brésil je pense que entraîneur bi il a manqué de d'autorité par rapport ak li comportement bi nga am si terrain on y reviendra ci perspective yi évidemment mondial off sans l'invité off ne serait pas mondial off invité off maa lay nuyu <coughs> Mamadou Ndiaye maa maa ngi lay nuyu di nuyu yi. dina la dalal jàmm aussi. oui yaa foofu au au chapitre des supporters est-ce que finalement. Euh, est-ce que c'est les plus bruyants qui sont en demi-finale wala. bon est-ce que c'est les plus bruyants bon supporters yëpp ils étaient bruyants sérieusement euh, équipe yëpp ñëw nañu avec leurs supporters même si bon foofu euh, à Doha dañoo réservé woon benn place boo xamante ni ñu duppee ko Soukouakif. Mm-hmm. c'est dans les pays euh, arabes a chaque fois dañuy am benn place boo xamante ni euh, souk lañ koy tuddee ñoom seen bos souk Wakif la souk Wakif moo doon euh, lieu de rencontre. mooy fi supporter croate bi créé émeute fan yi mooy supporter. supporter croate yi boobu xaw a. wa non ñoom ñëpp. borom silet borom silet maa voilà défilé de supporters la <laughs> surtout à longueur de journée. défilé des supporters boo mhm. xamante ni toute la journée ah en plus de ça dañ ko defoon en direct sur Al Jazeera <coughs> seen chaîne de télévision bien organisé nag mu am entrée am sortie amul buuxante et puis ñu décorer ko foofu ci biir ambiance la woon am sécurité. mais buzz buzz bi supporter Croatie bi yóbbu na ko de. non bari ci nag pourtant buuxante bi moom moom. <laughs> ça dépend de kan mooy seetaan indi <laughs> <laughs> dafa mel ne dafa mel ne supporter euh, Croatie bi daf ko daf ko daf ko impressionné mais bari na ci nag pourtant yeneen image yeneen supporter bu du du Croatie rek ah am na ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñëw nañ indi bon day wane ni ambiance bi amoon euh, à Doha dafa nekkoon ambiance festive boo xamante ni gis nañ ni amoon na ambiance bu neex et puis dajeel organisation bu am solo aussi ndaxte eh, ce n'est pas facile nga organiser coupe du monde rassembler supporters yëpp ñuy ñëw mu am sécurité mu am euh, li nga xamante ni aussi mooy discipline doo fa mm-hmm. dégg agression ñun fa nekk yëpp dama doon seetlu loolu biir foule bi mën nga ko yëkkati déggoo kenn yu këf nañu sa téléphone portable la def nañ la déjà am na sécurité défi organisation bi vraiment mhm. relevé nañ ko en plus ba bu ñu toogoon fii di déglu les média occidentaux li may ñu li may wax suñu confrères yi mooy da ngay tu as l'impression que ni gars yi du ñu du lu baax wala du am euh, organisation bi nga xam moom la mais boo demee sur place di nga xam ni vraiment ñii bu niveau européen yi nekkoon ci benn niveau wala ñaar ñoom yëkkati nañ ko ba ci quatre niveau boo xamante ne pour mhm. relever le défi de l'organisation il faut, il, faut oui, il faut quand même relativiser un peu les choses. mm veut dire que booy jouer euh, Europe wala ngay jouer Amérique wala ngay jouer Afrique fu la neex dem kenn du la amoo amoo interdiction de de mouvement. Charles, il y a à euh, risque quand même. Euh, où on interdit aux supporters de se déplacer. dans toutes les coupes du monde précédentes mosoo dégg coow. <coughs> maintenant il y a des réalités yoo xamante ne dëkk bi daf koy am du bokk ak yeneen dëkk maintenant en fonction de la réalité da ngay compenser l'offre Euh, encore une fois il faut comprendre fu may wax fu may waxee mooy <coughs> euh, boo demee man j'ai fait plusieurs coupes du monde mhm. donc euh, coupe du monde du seetaan match bi rek ci terrain bi après mhm. la coupe du monde il y une troisième mi-temps léegi Koweït dafa abrité am sa bokk ci benn civilisation am lu mu ko organiser laat nit ni ñu fekk ko si loolu mais mu am lu mu leen jox en compensation créer un espace et ça culture ça veut dire mooy ganale loolu mooy ganale booy xëy na mënul leen jox loolu tax mu am exception bu ngay wax mais exception bu ngay wax boobu foo mën mënti dem dans le monde da nga ko fay fekk multiplier par mille wala par dix mille wala par million pourquoi parce que y a cette liberté de venir et de partir dugg si ay endroits yoo xamante ne Koweït joxu la ko maintenant on ne parle pas du terme d'organisation mais c'est une compense dans l'offre parce que nit ñi mënu ñëw sa dëkk pendant euh, trois semaines wala quatre semaines pendant un mois te derrière tegoo loo xamante ne mooy ganale ga donc Koweït dafa ganale. gan Qatar Qatar non autant pour moi Qatar dafa ganale. wan nag si biir loolu toute sa culture et son savoir-faire. Mm-hmm. et loolu. xëy na nit ñi bëgguñu ko woon gis parce que c'est quand même une civilisation qui s'est exprimée derrière mun na am nit ñi mu am ay xeex une civilisation occidentale boo xamante ni que ne nous reconnaît pas a nous autres africains civilisation ñun culture la ñuy wax culture bantou culture euh, saheli ak yu demee noonu ñoom ñu wax civilisation alors que le Qatar a montré et c'est ça qui est beau dans cette affaire c'est que Qatar dafa au début ñëpp dañu amoon ay appréhension mu ne leen lii mooy ganal lii muy lii mooy suñu teraanga ci biir loolu même bu ñu xoolee ku ngay wax gan boobu ñëw def lu muy def est-ce que fayuñu ko sax pour mu def ko est-ce que loolu yëpp on peut se poser des questions derrière mais ça c'est l'épiphénomène mais il faut savoir qu'il y a des offres le Qatar a fait une offre de Ganalais mmh. euh, que d'autres pays font sans avoir à présenter ça de manière politique et organisationnelle parce qu'il y a des, libertés d'aller et venir dans des endroits que, des restaurants des bars et tout ça ce que tu ne peux pas avoir au Qatar beneen lañ koy def ak mmh. Charles sur l'aspect ah loolu mooy mondial rapidement mmh. euh, de la tanière élimination Sénégal bi cest est-ce que les gens sont vite passés à autre chose ils ont compris que fii la ñu waroon yem jeex na wala ça s'est vécu comment bon sa s'est vécu comme Sénégal yi ni ñu xam fii la ñu waroon yem pas fii la ñu waroon yem mais après man le match boo dégg discours euh, joueurs yi man sérieusement bon j'étais pas trop d'accord quoi comme si euh, voilà Angleterre dafa ñëw rek jaar suñu kaw loo xamante ni lu normal la déjà pour la coach d'accord uma ak discours am mu ñëw ci classement euh, FIFA bi cinquième mondial euh, mais ça mm -hmm. s'est pas passé comme ça ci ci coupe du monde bi comme Maroc gagné na Belgique. ci euh, boo xamante ne moo jël deuxième mondial. Maroc jël ay rang yu nga xamante ne ay dix euh, vingtième ak ay quelque donc loolu du pour man ah d' accord ma woon ak sélectionneur bi idem pour joueurs yi sauf. Kalidou Koulibaly yaakaar naa moo ci def beneen discours Kalidou Koulibaly euh, def discours boo xamante ni pour man gis naa ni lii dañoo ñëwoon chercher victoire bi mais ñi ci des dañoo mel ni dañoo wax comme si voilà dañoo ñëw rek bu ñu Angleterre gagné c'est tout à fait normal quoi rawatina score bii nii amul benn problème euh, loolu moom d'accord ma ci woon mais pour supporters yeeg ñi nga xamante ni ñooy euh, yenn ci membre staff bi c'était tout vraiment choc la woon quoi ndax gars yi ñu ngi doon xaar euh, du du ma wax sax surprise mais ñi ngi doon xaar Sénégal mën a ñëw jaar ci jaar ci kaw Angleterre mais ñun spécialiste yi nga xam suivre nañu bu baax a baax a baax équipe anglaise bi au début parce que en trois matchs ñoom ils ont marqué neuf buts. 9 bi en 3 matchs ñaari équipe ñoo fi dóor plus de 5 5 5 sports à part euh, Espagne mi dóor Costa Rica moom euh, Angleterre dóor 6 euh, loolu ñoo nekkul woon loo xamante ne lu ñu doon prendre en compte la et puis tactique tactiquement offense euh, attaque gu Angleterre bi dafa diisoon trop trop trop trop pour kii boobu nag ñu ngi ko doon bàyyi xel mais je pensais que ni. Mhm. technicien yi mu nekk staff bi sélection sélectionneur bi ñu ngi doon bàyyi xel bu baax a baax. Euh, mais boo gisee classement bi rek avant match bi coup d'envoi bi di nga xam ne lii tey du du du du baax loolu nag moom xam naa ne dina nekk il faut nga nekk spécialiste suivre match bi bu baax a baax suivre compétition bi pour mën a. waaw en tout cas demi-finale yi moom xam naa ni match yu neex lay doon évidemment on va passer très rapidement sur Croatie Argentine on on s'arrête là-dessus mais on a envie d'aller très rapidement sur Maroc mais sur Croatie Argentine. Évidemment, il y a deux ballons d'or en face, deux anciens ballons d'or en face, Je pense que Modric a pesé quand même en tant que ballon en tant que chef d'équipe sur la progression de son équipe. Et on le dit, rappelle encore, Brésil, bon, l'Union étincelant, il n'y a, pas a pas de ballon d'or, n'y a pas un joueur peut-être qui s'est affirmé euh, autant que peut-être Modric ne me portait Croatie. Croatie-Argentine. Est-ce qu'il y a logique, une logique qui peut être respectée ou c'est un match totalement ouvert mais c'est bon peut-être que. gisaane loowu ma la dee xam naa ni. ah non peut-être que am na benn benn benn euh, avantage bu léger avantage bu kii am bu Argentine am si euh, parce que ils ont Lionel Messi quand même quoi qu'on puisse dire c'est important parce que il peut faire la différence en n'importe quel moment donc loolu il faut tenir compte de ça mais euh, ñëpp xam nañ ni équipe bu bu am benn ténacité boo xam ne euh, il gère les matchs il tire ça en longueur boo demee ñoom. euh, prolongation. Mmh. Prolongation, ça devient plus compliqué. L'Argentine, quand ça marche euh, actuellement, quand ça fonctionne, mmh. c'est très, très fort. Donc moi, je, je dirais que l'Argentine a un avantage bu, bu, euh, bu ndaw sur, sur la Croatie. Et, mais il ne faut pas que, il faut pas que bi ci affaiblir si, prolongation. Je pense que s'ils veulent gagner ce match-là, il faut que sur 90 minutes qu'ils parviennent à, à, faire la différence. Charles, c'est un match ouvert ou... C'est un match, euh, match très tactique. Hein. Euh, les euh, Cro Croatie, Croatie, euh, Pays-Bas, Argentine, Argentine, quand tu joues avec de grands joueurs, de grands gabarits, bon jouer centré, ils ont Euh, et, et les Croates savent jouer au ballon aussi bien jouer rouler bal bi si suuf et ils peuvent aussi jouer di di centrer euh, ñaari match c'est en tout cas tactiquement c'est du balèze ñaari côté yëpp koo si gis euh, tactiquement lu diis la léegi les Croates quand même ont un esprit comme les les Argentins bu ñu ko xoolee bal bu ga bu joueur bi dóor la si touche bi comment ils savent mettre la pression match bi final ça ça va ça va se jouer à des détails techniques euh, mën na am bon Argentine am na Messi qui en a fait sa coupe du monde personnelle parce que jamais je n'ai vu Messi célébrer autant une victoire man mosuma gis loolu si Messi match bi day jeex bu am nga xam ne que kii il est venu jouer sa coupe du monde moom loolu moo manqué mhm. Neymar mhm. c'est d'abord cette humilité du joueur mhm. mais cette détermination te loolu mën na yóbbaale équipe y a cette photo où tout le monde est autour de Messi muy wax ak nit ñi si digg coupe du monde la woon. Mm. et kooku détermination personnelle boobu c' un Messi plus. Charles on a quand même vu l'image de Neymar après ses huitièmes de finale qui va chercher le drapeau à l'effigie de Pelé qui vient dans le rond central pour montrer que je suis le leader je suis là et on va le faire pour Pelé à partir de ce moment-là mm. on a pensé quand même que c'était euh, il y avait un mais mais mais boo sukkandikoo ci si li nga xam ne si expérience bi ñu am si sur des matchs clés même avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions des jours yoo xam ne jour parce que jour bi da nga ko war décisif mm-hmm. yaa c'est pas pour le critiquer mais je pense que avec talent bi mu am yëpp Brésil bi dafa dafa dafa dafa manqué woon un peu de c'est-à-dire que ni ñu ñëwee dañ ñëwoon pour jël jël coupe bi mais boo demee ba ci biir occasion par exemple yi ñuy raté am na ay match yoo xam ne dañ ko waroon tuer rey ko mu jeex mais duñ ko duñ ko def donc c'est pas c'est pas c'est pas la même chose parce que. mais sur le profil ça semblait quand même l'équipe la plus complète. Ouais, non, Brésil, non, le, moi, y a, euh, non, non, mais, mais le Brésil a perdu contre l'Argentine en, en, en finale. Oui, de, oui d'accord. Le mais football mais le plus complet bi ma ah, gis si Coupe du Monde bi honnêtement ñaari équipe laa gis ñu am football bu doy waar Maroc ñëw jege si leen si terme compact c'est le Portugal ak la Croatie. en termes de football pur. 90 minutes téye la 90 mais le, la Croatie a quasiment humilié le Brésil daf ko téye kan gis Brésil di jouer di di di di subir gën gis loolu mais contre Croatie Brésil dafa subir dañ leen maintenir dans leur zone. dawal si pour cent de possession de possession. Ah, et je les ai trouvés assez. par assez lourd. assez lourd mais moins percutant mais bon anyway ils sont partis. ils sont partout parlons de ceux qui sont là ah, ah, ah. li li ci des kay Maroc laa koy jagleel au-delà de le youpi le hurrah euh, en tant qu'Africain c'est face à la France quand même ah bon. c'est équipe euh, oui. c'est deuxième équipe wala <laughs> troisième équipe <laughs> c'est troisième équipe bon foofu je vais prendre une pièce entre la France et le Maroc bien entendu fils tête ko mais est-ce que le Maroc évidemment euh, officiellement le Maroc du football se dit que c'est possible de le faire. mais c'est face à la France quand même cette France de Kylian Mbappé et de Antoine Griezmann qui semble renaître est-ce que Maroc Maroc fu muy jaar. Euh, il faut mu jaar il faut mu jéem jaar foog sore. Euh, cette équipe de France elle est elle est quand même elle est là et expérimentée soo gisee expérience rek Angleterre xaw na leen rek mhm. mais à un moment comme mooy comme li ñu wax à un moment Griezmann il la pris le ballon. il a fait ce qu'il devait faire détermination boobu Giroud bi muy mbëkk bal bi loolu expérience moo koy dëgg sinon beneen équipe bi à la limite. booy ñoo leen gën a frais mais donc ils sont euh, parce que derby la parce que pays maghrébiens yi moom ku ci ku ci ku ci ku ci dajeeg France rek y a une petite tension c'est normal mais mais euh, quand même euh, par expérience France moo ëpp expérience et c'est très difficile pour le Maroc. de rééditer encore li ñu defoon mais comme on a vu c'est une équipe avec beaucoup de détermination effectivement on est africain on va les supporter euh, mais mais du yomb. Charles les chances Maroc on a vu les joueurs épuisés d'ailleurs seen joueurs yi presque ñi gën a kii yëpp ils sont sortis mais sur civière ou accompagnés parce qu'il était lessivé ils ont eu le temps de se régénérer quand même pour euh, ce match-là face à une équipe. bon ah, ça, ça c'est la question essentielle euh, est-ce que. Euh, l'énergie est là toujours parce que euh, le match contre le Portugal c'est pas seulement un match héroïque mais en termes de rendu technique tactique c'est l'un des plus beaux matchs yoo xamante ne contre quand même euh, Portugal am na si ay occasion seen gardien gën a leen si lu bëri bëri bëri mais c'est l'esprit léegi dafa am loo xamante ne Perisic moo ko wax après euh, bu ñu dooree Pays-Bas dafa ne bu ñu euh, leen est-ce que vous allez célébrer contrairement aux Brésiliens mu ne leen déet énergie boo xamante ni moo fi ne dañ koy gérer. pour mun a jouer suñu suñu suñu demi-finale. donc ce qu'il faudra éviter au Maroc mooy que le match contre Portugal nekk la seen match de trop parce que bu dee loolu euh, ce serait dommage d'avoir fait tout ça pour venir tey s'effondrer euh, demain plutôt s'effondrer beneen affaire bi mooy la gestion psychologique de jouer contre la France parce que quand même <coughs> on a quand même un Mbappé euh, qui moom loo def moom day xëcc. Mhm. day xëcc alors Mbappé va se retrouver sur le côté de. Hakimi mhm. donc il y a des matchs. dans le match. Ils sont très amis en plus. Waaw parce que Mbappé mhm. allait le voir même à oui, son hôtel. Tout à fait. Euh, comme si c'était prémonitoire. Donc si bien il y a des matchs dans le match mais est-ce que l'entraîneur Walid va réussir ak garder le même influx nerveux. waaw yóbbu moom xonjom sax foofu. Euh, non man ay xonjom xam nga sëriñu France maa a wax ni ma man xonjom néew man nee naa la. et puis c'est une bataille man xonjom gars yi ñuy xonjom man xam nga nee naa gars yi bu ñu wax tamit dawal football boo ñàkkee euh, football lu bëri la ci mais c'est un match tout dépend de l'état d'esprit. Mhm. des Marocains mais s'ils sont dans le vif. Euh, mhm. Euh, bu fekkente ne vingt trente minutes euh, France dugalul euh, ça devient un autre match hein. et c'est ce qui est arrivé avec le Portugal hein. Portugal dafa jouer minutes dugalul quarante minutes Marocains commencé ne affaire bi mun nañ am mun nañ gestion psychologique quand on est comme ça à minutes d'une finale historique Coupe du Monde Maroc l'a fait déjà première équipe africaine à aller en demi-finale Euh, psychologie bi pression bi ça peut être un est-ce que dañ koy est-ce que ko mais mais xam nga dafa dafa am loo xam ne. ils ont quand fait des matchs très difficiles. physiquement. Mhm. bàyyi nañ fa ay force te loolu. loolu il faut tenir compte de ça match bi mën na équilibré comme mën na doon match boo xam ne 3-0 la mën na ne c'est ah. te man samay wax dee leen ko dee leen ko bàyyi. Ah, am na lu mu ça peut aller en vrille am na lu mu bëri xel. waaw waaw mais donc je veux dire. je veux dire je veux dire et puis tu as quand même un entraîneur qui fait un boulot comme ça qui connaît son muy muy Deschamps dafa xam son mhm. attaque. dafa mhm. maitriser dafa huiler affaire bi. fu mu nekk groupe sax. waaw son groupe mais surtout ci kanam. il a mis l'équipe en voilà ci ñi nekk ci kanam. dafa am benn truc Dembélé dañ koy fàttali mais c'est lui qui fait aussi quand même une un mondial extraordinaire donc. Mhm. Euh, c'est ça va pas évident pour pour pour le pour le Maroc mais pour man. c'est sur ces deux coachs là que ce match là match se se joue parce que am na impact bu ñu boo leen xoolee nga xam ni il a dit ça j'ai écouté mu ne c'est pas un hasard on a travaillé ku ku ku ku ku xeex ak xeex ak Portugal xeex ak euh, Belgique. Mhm. ah tu as bossé maintenant li ñu liggéey. en tout cas moi je supporte mhm. le Maroc. comme africain et puis Charles j'aime évoquer le souvenir avec toi c'est une qui a de 86, nous on a évoqué Omar Gaysen, Tchernoïm, des Bokande, mais quand tu as des Bouderbala, des Timoumi, Abdelakrim ah. et surtout Badouzaki, quand même, ah, l'un des meilleurs gardiens africains de l'histoire, terrain Bissou, ça peut être un plaisir, là, Charles. Non, la chance de, de, les, de, les, voir tous le joueur qui m'a Zigzag. quand je, pense que, le Maroc a fait rêver. l'Afrique euh, en termes de football. Le, et, et c'est extraordinaire de voir d'ailleurs comment les Sénégalais sont tous devenus des Marocains quoi les Marocains auraient je veux dire ça aussi c'est chose boo xamante ne foog ñu xool ko. ñu xam nga un petit souvenir. ñu xool ko suñu biir quoi. bu de bu dee balaa nous sommes tous Marocains. mais mais mais mais mais Charles bu dee balaa dafa xewaloon fii Sénégal. di football sama genre takk élasto ci genou quoi parce qu'il était <laughs> avec El Hadj même quand t'as pas mal t'as envie de. mais mais football na fi football na fi euh, Demba Diop di ko acclamé. xaw ma Demba Diop xaw ma euh, Léopold Senghor ñëpp a taxaw di ko acclamé. et il a joué pour nous faire plaisir. Euh, mais mais kooku c'est c'est assez spécial moi je. France bon match comme l'a dit Bouba la rek la il faut pas que le match de Portugal soit le match de trop. Mm-hmm. waaw sinon ce serait dommage. Ndiaye. évidemment on va regarder ce match là ici dem nga ñibbisi nga euh, Maroc quand même et puis et gis nga fii communauté bi ah. je pense que li nekk foofu moo nekk fii. très rapidement. ma fii tamit keroog samedi gis naa leen seen euh, mobilisation mais ñi nekk foofu au départ c' était au nombre de 60 000 euh, Marocains actuellement nii ils attendent 40 000 encore mhm. yoo xamante ni ñu au niveau de Doha entre Dubaï et Doha loolu yëpp partout di wane ni seen mobilisation comme le dit c'est euh, des pays qui sont habitués à voyager avec l'équipe rappelez-vous Égypte bi dem finale ak on avait l'impression que l'Égypte jouait à domicile au Cameroun mais les médias tellement les gens ont voyagé et bi ñuy ñibbisi l'aéroport était rouge et pourtant ñoom ñoo pertroon c'était juste impressionnant <laughs> promet du spectacle ça promet du spectacle Croatie Argentine dès ce soir et puis on revient demain à la même heure bu sobe yàlla am na lu mu bërëxal nee na mën na doon trois 0 yaa ko wax de bon mais waxul pour kan bon Charles non non non j'ai pas pas dit dama ne la dama ne la Maroc mën na résister mhm. mais bu dee benn équipe moo war a dóor sa morom France lay doon moo ko wax na ok Charles merci beaucoup Hein? Ah, eh, on fait voilà. on fait quand même. Ouais. un voilà. grand coucou à maman ah, Louise. Ah, voilà ma, maman Louise maman Louise moom mooy. moom 13 décembre dañ ko koy bàyyee. voilà maman moom mooy waajuru. Charles di sama boss. aussi fête 89 c'est ça. 89 ans aujourd'hui. maman Louise on l'embrasse très bien moom sama yaayu bopp la exactement. et toi aussi joyeux anniversaire mais je la laisse à maman tey moom nañu ko boole lépp rek. merci merci pour les aussi. 13 décembre nag du du du voilà man ak maman Louise ñoo ko bokk. merci beaucoup les à demain. Ouais. Allez, 13h le jour. OneXBet, profitez d'une vraie sensation. Une vague d'émotions Une poussée d'adrénaline. Le goût de la victoire. Êtes-vous prêt Découvrez tout cela et plus encore avec OneXBet. OneXBet, les paris pour tous les goûts. Jeu autorisé par la LONAS aux plus de 18 ans. sa askan bëgg la dañ ma njukkalee woon king tey man maa leen di bégal